ndeysaan arbitre baa ngi wax ak ñaari mbëri dañoo bokk fi ñuy taxaw arbitre bi nee ku nekk kaay nii mu bañ da koy piil jëlal tëb kii jël fiif ñu xool ñoom ñaar kan mooy gañe ndeysaan dox ci diggante Balla bu jam ñaaja ak maana écurie Yoff ndeysaan arbitre bi sifflé na Balla bu jam ñaaja moo rawoon ginnaaw ngem boo ngem bu Lagos di maana écurie Yoff moom nga jàkkaar lool mooy njool mi ñoom ñaar fu ñu nar a maana jiital tànk di Balla bu jëm ñaajo jiital tànk càmmoñ garde normale ak fausse garde ndeysaan ba mage ba këf na sama programme yóbbu na ko <laughs> ndeysaan le grand Pape Maguette Ba oh waaye làmb gi c'est la famille làmb dafa riis làmb dafa am valeur waaye ñaari xale yaa ngi noonu ba tey mbokk yi bu leen jaawale mu teg ans daanu nga boo defee kat appi daanu nga bu sa bopp suuf daanu nga mbokk boo jaaxaane kenn waxaale wu ko boo dëppoo kenn waxaale wu ko buñ la dóoree nga daanu nañ la fokk nga ñibbi <laughs> waaw loolay làmb ndeysaan lépp baaxu góor la lu ne xaj na ci ndaysaan Balla bu jam ñaaje moom nga wan ginnaaw maanaa nga jàkkaarloo arbitre bi àtte na ku dem ardo Balla bu jam ñaajo R4 doo na R4 doo na dellu siwaat nañ arbitre bi sifflé waat na ndaysaan ginnaaw bi Balla bu jam ñaajo demee ardo ba ñëw arbitre bi sifflé waat na diggante Balla bu jam ñaaja ak Maana ñaari xale yaa ngi ma ngay fayu Balla bu jam ñaaja ak Maana ay sa ñoom ñaar a ngi noonu Balla moo la wan ginnaaw Maana moom nga jàkkal Maana dóor na daw na jëli ko Balla jàpp na lan moo nar a Balla ëñ na ko Balla bu ñaajo daan na maana Balla bu na Balla daan ñaajo daan na ko jël ay Balla daan na ko waay xoolal ma lii maana jugal ñibbi takk na gàllaaj la loo yore bu mu jot reliquat am daanu daggaw yëpp sànni sëriñ bi bul ko fay bul ko fay na la delloo daggal sànni da daanu oh lamba ngi ndeysaan lamba ngi ku daanu wéet ku daanu wéet